dikkati na pënd ba wureegul turbine yéen a kaay naan maan waaye ma nga nar a wuree tribunal d'instance bu ndakaaru moom Ousmane Sonko nekk ëllëgëm ci wàllu politique fas na ko yéene waxtaanee foofee ci tribunal d'instance bu ndakaaru yéen a kaay des médias bi naan maan ab rabat d'arrêt lay awokaam bëggoon ñi daal di koy saytu nu mu gën a gaawee ngir Ousmane Sonko moomee ñu lettu ñu firi ko loolee ëttu attekaay bu kaw bi daf koo daal di dàq l'observateur naan man dàq kay la cour suprême def la avocat Ousmane Sonko bëggoon ci turam wii nga xam ne nee ñu nañ ko dugalaat ci biir liste électorale yi ngir Ousmane Sonko mën a bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy soobu ci élection présidentielle 2024 ci réewum Sénégal turbine yéen kaay naan maan gëm sa bopp ak ca soobu ñoom it Siré Sis responsable gëm sa bopp ca Mbour ne Sénégalais yi daal dina ñuy pare na bugaan ndax nag jéppi la ñu def Issa Sall ma nga xam ne dafa daal di war daal di trahir waa Mbour lii ko di jee naan kon waxuma la pare ji de waaye fi mu toll ni yóbbu caution ca CDC gaa ngi mel ni mbàccum gerte ci réew mi gannaaw bi ñu nee matul fukk niki démb day ñaar daal dinañuy déposé seen caution yéen kaay bi naan man Déthié Fall déposé na waaye Abdoulaye Sylla bu Ecotra tamit déposé na njiital coalition ABS 2024 fi mu ne déposé na caution di xaar na conseil constitutionnel lu mu wax ci jëmmam jëkk candidature am gi gannaaw parrainage boo xam ne def nañ ko ci fukk ak ñeenti diiwaan yi nga xam ne ñoo nekk ci réewum Sénégal diggante Saint-Louis ak Ziguinchor jaare ko Thiès Touba Mbacké Kaolack Fatick Sédhiou ba Ndakaaru kon njiital Ecotra jàpp ne lépp loo xam ne warees na ko woon def ngir gaay yi daal di koy boole ci élection présidentielle day ma nga ca boobu le présidentielle turbine yéene kaay naan man Amadou nga ca ay yi saa di ko jébbal ay parrainage l'observateur naan kon parrainage am yooyee de jural na guuta yaa xam mbay ak le soleil turbine naan kon may ma ma yëgli ci lii xamal la ni ci anniversaire u APR yi profitoo na ci moom Ndeye sali Diop Dieng ak soxnay APR yi daal di dajale lu toll ci téeméer ak fukk ak benn junni ci parrain yoo xam ne premier ministre bu Sénégal lañ ko jébbal di candidat bu Benno Bokk Yaakaar ni ki démb ci aljuma ji Ndeye sali Diop Dieng soxna APR yi daal di ànd ànd ak bépp militant bu Benno Bokk Yaakaar daal di xamle ni yaakaar gi fi mu toll nii ñu ngi ko wékk ci Amadou Ba diggante Néné Fatoumata Tall ak Aminata Lo waaye itam Abdoulaye Diagne mi nga xam ne moom la ñuy sédd parrainage yi ak Abdoulaye Diouf Sarr muy coordonnateur bi ci Ndakaaru joxem parrainage yi mel ni mbàccum gerte ki démb ci waa Bennoo Bokk Yaakaar l'observateur naan kon waaye day gën a mitti de ndax joxem parrainage bi daal dinay gën a indi xaajaloo diggante Mimi Touré ak président Macky Sall waaye fi mu toll nii yaa xam mbay dafa daal di soobu ci xeex bi moom Mimi Touré daal di porter plainte le soleil ndax nee na ñetti million parrainage gi ñu ne Amadou Ba am na ko du dëgg Mimi daal di fay jaaree plainte le soleil daal di dal ci kaw yaa xam mbéy ba maar day taali l'info yéene kaay naan maan booba Marie Xemes Ngom Ndiaye day mi ngi ci guddi gubar setagul moom Marie Xemes Ngom Ndiaye ministère am mooy bu santé scandale daal fay amati téeméeri million d'euros boo ko wecci koo muy juróom benn fukk ak juróomi milliard bu sunu koppar CFA daal dina yëngal fi tool toll nii gouvernement gi di ab marché boo xam ne ministère de la santé moo ko xaatim ak kuy jébbale ay matériel de Afrique distribution moom ministère des finances daal boobu le marché fukki fan ak juróom ci weeru sàttumbar mu tabax ca Bakel waaye tam benn centre diagnostic ak imagerie ca Fatick yéeni kaay bi naan man dil ba ñu ngi koy tudd Marie Xemes Ngom Ndiaye mari Xemes moo mee di xamle ni urgence bu rëy rëy moo taxoon marché bi daal di demee nii ndax nag fitna yi nga xam ne amoon na diggante 2021 ak 2023 lii waraloon nag marché bi ñu daal di koy tëggee ni l'observateur naan man en tout cas Asiye Kassé Dioum directrice bu Afrique conception distribution nga xam ne ñoom la ñu joxoñ baaraama tuuma ma ngay weddi nag boobule dil di andi ay leeral ci lan moo waral marché bii daal di amee nii waxtu woowu ca Matam ñàkk ñoo xam ne dees nañu faju broñoo tax na ñeent ñoo xam ne dañ doon faju foofee ñàkk seenu bakkan waxtu woowu la Soleil yéene kaay naan man Sall day ma ngay plaider Afrique ca COP 28 ba moom Sall yemu ca nag ma ngay daal di alerter naan leen attention fi nu jëm ak wàllu ji day dina met dina sakkan tribune yéene kaay naan kon booba samees ñi ngi xam le ni benn fanu gréew lañu war a sóobu te boo moytul mënees na ko yóbbu l'enquête naan man lu mu metti metti bu leen fàtte ni massacre caaroy ba faat sunuy maam benn fan ci weeru décembre la amoon 1944 juróom-ñeent fukkat ñeent gannaaw événement caaro yi kaddug cim dong la ñu jëlee ci nasaraan si maître baara joxaane dëgg gi waroon jib ca loolee nga xam ne suñu maam faatu woon nañ ca te jibul moo ko metti fekk leen ci ay kang tul leen ay bal dóor leen ay sox ba ñu faatu ci anam mu mitti lool tey jii ñuy raay raayal dëgg bi loolee moo am ci kang bu caaro yi ak lu mën a mbokk yi ñuy ñaan jàmm te yendoog jàmm i euh, prépayé woyofal gi xam ngeen ne loolee sa assemblée nationale ba mu jàkkaarloo député yi moom Antoine Félix Diome ministre bi ñu dénk wàllum pétrole énergie moom moo ko njëkk annoncé xibaar ba na kon nag dees na ko tàmbali koy jëfee ci premier décembre bi loolee nag ki nga xam ne moom moo initié woon pétition contre la hausse abusive jëm ci facture courant yi ne nag soo moytuwul dañu ko def rek ngir élection yi ñu dëgmal sëlëm euh, maanaam askan wi neexal leele leen ko Oumy Ndour mu ngay xam ne ne kon naam loolee lu ñu mën a rafetlu la nag waaye la gënoon moo di bu ñu supprimer trois euh, troisième tranche yu facturation boobee nga xam ne oyofal bi kese la la la soxal ña nga xam ne ñoom compteur yitteelu leen euh, tamit dina ñu yokk premier tranche bi ko ba si deux kilowatt heure Oumy Ndour ay kàddoom ñu teewlu ko ci téléphone nanga ko bakk yokk ko doon xeex pour ñu wàññil la ba ñu am luñ ci wàññi du ñu ne baaxul waaye wax nañu gën a yokk seen jéego ndax ñun dañoo jàpp ne xam ne facture ñaari weer yu ne mesure bi laa donc ñun troisième tranche bi day compter di cher ci ñun pour man combat bi ëpp solo mooy ne première tranche bi nga xam ne moom la ñuy tuddee tranche sociale muy cent cinquante kilowatts dañ yokk ndax kër gi gën a xam ne amul clim amul dara cent cinquante kilowatts tawat mu mënatu ko yóbbu ñaari weer war nañu xeex ba tranche sociale bi ñu jóge cent cinquante dem deux cent cinquante kilowatts loolu dina gën a jàppale askan wi te man dama jàpp nag ne li ñu wax ni ne troisième tranche bi dañ ko dindi ci woyofal bi ko def rek pour élection yi ndax ñoom ba ñuy wàññi subvention cent milliards daaw xamoon nañ ne bu tegoo si ndoddu Sénégalais yi duñ ko àttan ñu def ko ñu toogaat ba élection yi di dikk ñu ne waaw troisième tranche bi day tëb jox nañ ñu calmant waaye joxaguñ ñu garab gi nga xam ne mooy saafara jàngoro ji ay calmant la wala garab gi saafara jàngoro bi en tout cas umidu xelam ci jëm ci troisième tranche bi nu supprimer xelam dalul parce que ni ñu présenté yëf yi dafa mel ni ñoom Oumy Ndour li ñu doon xeex dafa mel ni woyofal kese la woon alors que du woon loolu ñoom seen combat bi moo nekkoon facture yi muy woyofal muy euh, post paiement bi mooy ñi nga xam ne ñooy jot facture ñi am compteur euh, ordinaire yi donc combat bi c'était un combat global facture yi cher na njëgu courant bi cher na ci gàttal pour ñëpp ñi nekk oyofal ak ñiy am facture mais assemblée nationale ministre bi dafa ne avec effet immédiat troisième tranche bi supprimer na ko Sonat euh, Senelec ne déet nañu xaar ba comité de régulation de l'énergie commité national CRSE e, valider lii nga xam ne mooy suppression troisième tranche parce que dossier bi actuellement nii mi ngi ci bureau effectivement loolu la kuréel gi def keroog àjjuma Euh, def naa àjjuma valider ko ba Sénélec commencé ci communiquer et effectivement à partir d'hier bu fekkee bu ñu sukkandikoo ci décision bi nga xam ne génn na à partir d'hier troisième tranche amatul pour ñi nga xam ne ñoo nekk ci woyofal maanaam ba léegi li fi ne la fa newoon presque moo fi ne ba léegi modification certes am na parce que benn euh, partie bi mujj bi lañ supprimer mais li nekkoon tranche euh, tranche sociale li ñu doon tuddee tranche sociale yemale woon ko ci cent cinquante kilowatts ku ko consommer nangam bii lañ lay jaay mu oyof kilowatt bi boo duggee deuxième tranche ñu xaw ci dool tuuti aslëf maanaam boo boo commencé jéggi cent cinquante kilowatt dem dem ba ba deux cent cinquante hmm. donc loolu moo nekkoon seconde tranche bi troisième tranche bi nag suprimer nañ ko mais teewul umindur seen combat ba léegi moo ne woon nañu fexe ba yaatal tranche sociale bi jële ko de cent cinquante kilowatt yóbbu ko ba deux cent cinquante comme ça hmm. au moins dina gën a oyof parce que la ngay jëndee deuxième tranche également mais dafay yokk tuuti ci première tranche bi donc ba léegi yëf yi day xaw a cher c'est vrai que euh, euh, troisième tranche bi léegi ak même boo euh, deuxième tranche bi presque kon amatul limite pour pour waa oyofal mais quand même deuxième tranche bi moo gën a cher première tranche. Mm. donc li gënoon a jekk amaana mooy première tranche boobee nga xëcc ko ba mu yegg deux cent cinquante kilos bu boobaa. xëy na ñu bëri nañ ci mën a gis seen bopp c'est vrai que le contexte est très électoral c'est vrai que contexte bi élection lañ jëm c'est vrai que dañuy faral di gis élection buy jëm si nii le régime bu fi nekk dafay commencer indi ay mesures à caractère social pour peut-être sëlëme ko nit ñi wala peut-être pour neexale leen ko mais bu dee loolu tamit tant mieux parce que luy nit ki di gën a mën a économiser kopparaam baax na mais nag buñ ko naxee nit ñi ne cadeau électoral la loolu la Oumy Ndour bañ man je pense que elle est en droit de de moom ak ñi nga xam ne peut-être ñoom euh, ñoo ko ciy jàppale ci ci combat bi waaw ñu waxtaane première expérience bu transplantation rénale bu ñu amal fii ci réewum Sénégal ñetti ñi ñu opéré ñu joxe seen réunion ak ña ñu ko defal lépp jàppale ne kon jamono jii da faw ñoom suivi médical bu nga xam ne moom la laaj en tout cas ay leeral yu bawoo ci enseignant faculté médecin pharmacie d'odontologie université Cheikh Anta Diop bu Dakar ñoom dañu bokk sàkku ci consortium médical bi nga xam ne ñoo amal expérience bu njëkk boobee jàkkaarloo na taskatu xibaar yi professeur Badara Diaw chef service neurologie bu hôpital militaire bu Wakaam di ci andi ay leeral ci micro Dame Ndiaye. Euh, li tax ñu toog juróom-ñetti at greffe amu fi mooy loi bi bi mu njëkkee génn. dafa am lu ko waroon complété li ko waroon mottali mooy décret d'application bi ak ay arrêté yi nga xam ni waa ministère la santé waroon nañ ko def. def nank parce que booy greffé ki ngay jël roñoom kooku feebarul te médecine day tere nga opéré ki nga xam ni feebarul donc médecine bu joxee bu bu defee exception ci kaawu don d'organe ki nga war a jël rein da nga war a def nànk da nga ko war a évaluer comme il faut pour bañ erreur am ci warul joxe rein pour feebar après moo tax temps il fallait préparer tout sa processus la pour que yenn tolof tolof bañ ci am looloo tax ñu toog autant d'années avant ñuy commencer. boobee jàppale ne kon am nay hôpitaux yi taxaw ngir nag daanaka mën a amal opération bu nu mel waaye nag dafa am euh, la nga xam ne ay conditions la ñu war remplir ñaata la ñu koy defal ay leeral yu baw ci professeur El Hadji Fakhri euh, Ka président bu comité national de la transplantation et don d'organes. soo bëggee transplanter il faut nga am euh, il faut nga am ay nit personnel qualifié. car personnel qualifié bi urologue la néphrologue la euh, immunologiste la vraiment équipe la ñëpp dañ ciy nekk. il faut nga am aussi ay jumtukaay yu doy jumtukaay yi ci laboratoire yi ci rajo rajo bi la ci ci ci bloc opératoire ci yëpp la donc yooyu yëpp da nga war war a wàccoo yow soo fekkee hôpital bi dafa nekk vraiment transplantation bi ñor na ko bëgg na koo def day déposer dossier dañuy wax dossier de demande d' agrément. da koy déposé au niveau du ministère de la santé bu moom mu transféré ko waa CNDT bu boobaa nag waa CNDT dañuy saytu dossier bi xool ndax moom est ce que li ñuy laaj ci ci charte bi yëpp indi nañ ko su fekkee indi nañ ko ñu yebal ay experts ñu dem évaluer hôpital bi ñu xool ndax wàccoon ak charte yi. loolu fu mu nekk nii liste bi douze personnes ñoo ngi taxaw bëgg ñu amal leen bi donte dix la laaj ngir ñu mën ko def. donc ça veut dire que euh, le besoin est là. Mm-hmm. nit ñi dafa mel ni yàqamti woon nañu. lii am parce que ku gis ñi nga xam ne ñooy hémodialysé yi ku gis les insuffisants rénaux mambay may nga leen di yërëm da leen di yërëm parce que ñu bëri amaana deseetuñ dara jaay nañu seeni alal yëpp pour mën a faju chaque semaine di nga dem au moins séance ñaar ba ñett yoon dans la semaine te loolu xaalis la alal la boo ko amul nooy def kon bu fekkente ne Sénégal dem nañu ba faj ci wàllu docteur mën a maye nga jël ci nit def ko ci sa yaram nga mën a sowe te du lor kële parce que moom la professeur bi doon expliquer sànq nit ki lay jox organam comme roño est-ce que buñ ko dindee ci moom du ko indil feebar yooyu yëpp il faut waaw kër docteur mën ko calculer mën ko xayma mën ko évaluer ba buñ ci gisul benn risque ñu doog a dindi benn ci yow jox ko sa benn mbokk mais même ci joxante boobee dañuy xam kiy joxe ak ki nga xam ne moom lañ koy jox loolu yëpp législation la boo xam ne Sénégal def ci yàgg sëgg depuis wax nañ ko sànq je pense depuis au moins huit ans huit ba dix an au moins huit ans pour xayma ko teg yëpp yi ci yoon parce que dégg nañu ci yeneen ay réew ne am na nit ñoo xam ne dañuy sàcc ay organu jàmbur nappe nit jël ca moom la ngay jël sànni ko ci mbedd mi bu dee baax na bu dee bu dundee baax na nga jël loole dem jox ko keneen donc organes yi il faut mu am li ñuy tuddee ci système bancaire peut-être traçabilité il faut ñu xam organe bi fan la jóge ku ko moom ci yan condition la fa la fa jóge également looloo waral xëy na li am Sénégal mën a am parce que il faut également nga garantie procédure bi processus bi de sorte que bu subaa benn tolof tolof du ci am te du war a mën a rax dara hôpitaux yi nga xam ne nag peut-être war nañ ko mën a def parce que tey jii Sénégal war na toll foo xam ne hôpital boo dem war na mën a am loolee yëpp mais dégg nga également ni ko professeur Falika waxee dafa am ay jumtukaay d'abord yu ñu lay laaj il faut nga am ko boo ko amee ba pare il faut nga am nit ñoo xam ne loolu mooy seen xam-xam parce que c'est toute une équipe yemul rek ci benn nit équipe la ku ci nekk ak la nga war a def ku ci nekk ak la nga ca moome ak la na nga ca war a intervenir bu loolee yëpp jeexee nag ñuy doog a xayma dossier bi xayma hôpital bi condition yi nekkin wi faisabilité bi ñu lay doog mën a jox autorisation et gëm naa ne sax loolu waratul wa waratul mën a doon problème parce que boo xoolee médecin yu bëri ca bitim réew mais Sénégal la ñuy formé mm. ñun bu ñu xeeb suñuy médecin lii ñu def nii gàccee ngaalaama médecin yi gàccee ngaalaama professeurs yi nga xam ne ci recherche ak yooyu la ñuy la ñuy gëstu parce que lii am na réew yu bëri yoo xam ne Afrique amu fa mm-hmm. mënuñu ko ñun Sénégal yegg nañu foofee parce que justement sunu formation bi moom moo am solo université Cheikh Anta bu Ndakaaru wala yeneen institut de formation de santé yi fi ne gàccee ngaa laa ma ñoom parce que ñu ngi former ay élite léegi et je pense que monde bi yegg na vraiment ci Sénégal war a mën a méngoo ak jamono ci lu bëri lu ñu def ci bitim réew ci wàllu faj wàllum euh, kër docteur sax la ñu desandi programme national bi nga xam ne moom mooy xeex xeeti jàngoro yi ñu tuddee maladie tropicale négligée euh, campagne bi yees la ñu fës kee ne nag euh, lancé jëm ci seddat la yenn ci ay garab lañ si jublu moo di 75 pour cent bu taux ba couverture bi jëm ci bilharziose 65 pour cent filariose lymphatique en tout cas lu ci mel ni kon district bu pété loolee bokk na nga xam ne yittewoon nañu ko waaraam bëgg nañu ko am ci ay résultats deuxième campagne boobee ci département bu Batoor campagne la bu nga xam ne vingt quatre districts sanitaires la ciblé ci juróom-ñetti ci ay diwaan euh, Ndumbe Sow bokk ci responsable yi nga xam ne daanaka ñoom ñoo ŋànk campagne boobee ay kàddoom ñu lu ko xala San Balde. bii nii huit régions rek la concerné muy région de Dakar région de Thiès Fatick Kaffrine euh, Saint-Louis Ziguinchor et Sédhiou. pour couverture bi dañu bëgg que cible yi moom mooy 24 PPS yooyu ñu ciblé ak district yi ñu ciblé 24 districts yi ñu ciblé que ñi ñu ciblé yépp ñu jot seen garab. moo ne wax couverture à géographique de 100 pour cent par rapport ak euh, feebar yi nag pour euh, schistosomiase ñu koy wax bilharziose ak géohelminthiase ñu koy wax feebaru saan yi suñu couverture euh, thérapeutique c'est au moins lu mu néew néew ñu am 75 pour cent pour filariose lymphatique bi nag. moom lu mu néew néew ñu am 65 pour cent. boobu pete rek la concerné actuellement. Ousmane Sonko sàkku teefam nag daanaka la mu bëggoon ngir ñu dogalaat turam ci liste bi euh, daanaka dana xaaraat. cour suprême dafa rejeté recours bi mu déposé woon ay avocat ñoo ko déposé woon xam nga ne mardi bi wees rabat d'arrêt la ñu koy tuddee gannaaw nag publication arrêt bu euh, cour suprême euh, nga xam ne dafa annulé décision ba nga xam ne tribunal bu Ziguinchor daf ko jëloon sàkku ñu dugalaat turam turu Ousmane Sonko ci liste électorale bi cour suprême si euh, occasion boobee dafa renvoyé dossier bi ci tribunal or classe bu Dakar pour jugement ñu ngi si doon wax sànq dafa mel ni temps amatul de temps amatul temps amatul mais il faut d'abord ñu comprendre euh, décision bi fan la sukkandiku. Mhm. parce que déjà cour suprême mi àtte woon mbir mi bay nen nañ ko yóbbu tribunal hors classe bu Ndakaaru cour suprême boobee la avocat Ousmane Sonko dem indil ko recours pour mhm. rabat d'arrêt maanaam am na benn juridiction comme bu Ziguinchor juridiction inférieure boo xam ne jugé na ko ba pare yow cour suprême nga ne nañu ko delloo or classe bu Ndakaaru léegi yow cour suprême pourquoi yow mënoo ko waat hmm? genre googu la euh, mais ci biir procédure bi ci biir saisine bi ci recours bi ñaari mbir il faut ñu identifier ko parce que loolu moo fondé justement décision wu cour suprême benn bi rabat d'arrêt maanaam bu dossier bi dem fële nañ ko àtte fii deuxième euh, euh, euh, deuxième bi mooy am na benn requête bu ñu tuddee abréviative boo xam ne lii ma la indil nii bu ma sañoon nga àtte ko léegi léegi maanaam diir bi nga waroon a toog pour war ko war cee mën a sëgg atte ko xool ndax dina mën a ne wala du mën a ne mm. diir googu bu ma sañoon nga gàttalal ma ko bu bu ma sañoon sax mu nekk léegi-léegi donc ci la ko waa cour suprême ne avocat Ousmane Sonko dangeen a boole ñaari yëf ñaari yëf yoo xam ne benn il faut ñu fàttaliwaat ko indi ngeen rabaat dare bëgg ñu àtte ko ci nu mu gën a gaawee mais loolu du tax du aj décision bi nga xam ne jëloon nañ ko pour yóbbu dossier bi hors classe bu ndakaaru maanaam aju ko ce n'est pas suspensif parce que yenn décision yenn jugement yi boo xesee ba def recours dañuy ajandi maanaam man mi bu doon am na àtte boo xam ne dama cee war a mën a tëdd kaso sama avocat def recours wala peut-être le parquet def recours man damay toog di xaar du ma demagum kaso damay toog di xaar mais bii amul xaar décision bi comme toxal nañ ko fële procédure bi day continuer donte indi ngeen rabat Mhm. loolu la signifié benn deuxièmement cour suprême ne leen rabat d'arrêt bi ak euh, euh, requête abréviative bi ngeen indi mënuta bokk ci procédure bi nga xam ne moom ngeen initié ci cas yi ngeen indi mënuta bokk donc loo tax ñu rejeté ko léegi nag kon dafay des ñu déglu tribunal hors classe bu Ndakaaru kañ lay tëgg procès bi pour ñu waat mbir mi en tout cas nous sommes encore dans les délais mais délai bi desatul lu bari kon procès bi bu a mën a yàgg dinañ ko àtte euh, bien. su gàtt ci mhm. euh, ñu waxtaanee élection présidentielle 2024 ba tey coalition Benno Bokk Yaakaar la ñu tànn moo di parrainage des élus euh, loolee nag tànneef googee lu ñu mën a xel mën na koo nangu ci jamono ji nga xam ne njortees nañu kon doublon externe dina bari lool ci ñi nga xam ne ñoom la ñuy mujjee ñooy mujjee déposé seeni i loole loolee njiital GRADEC moo ko xam ne Babacar Fall ndax nee na tirage dañu ko def ñiy njëkk kon déposé ñooy ëpp chance ngir mën a mucc ci doublon externe yooyu ay kàddoom ñu teewlu ko wax ci téléphone Evelyne Mandiouba coppite bi mooy dafa am li ñuy wax euh, benn commission de contrôle et de vérification boo xam ne moom la ñu taxawal concrètement li nga xam ne moo nar am mooy candidat yëpp bu ñu déposé conseil constitutionnel dafay convoqué mandataire u parti bu ko defee ñooñu daal di toog ñu daal di def lu ñuy wax tirage au sort ñu xool naka la ñuy mën a euh, déterminer ordre de passage yu candidat bu nekk bu ko defee noonu la ñuy euh, donc jàllee ci kanamu commission de contrôle et de vérification bi alors conséquence yi mooy ki nga xam ne mooy jëkk a jàll moom bu weesoo ay rejet du am benn probabilité moom ay doublon waaye ñi nga xam ne ñoo ciy topp rawatina ñu nekk ci position yu xaw a sori ñooñu effectivement dinañ am probabilité yu bari pour am ay doublon externe dese neex Babacar Fall njiital GRADEC mu ngay xam ne ne kon parti yu Macky naa nag dañoo profité bi rek ngir nag gën a jege seen i militant animation seen parti delluwaat am ay activité moom Babacar Fall ne nag ña nga xam ne ñooy parti yi nga xam ne am nañ possibilité am très euh, daanaka nag du ñu sax euh, di ko laam-laamee euh, du ñu sonal seen bopp ci parrainage citoyen waaye nag faw ñu bàyyi xel ne askan wi bu ñuy signé seen i données personnelles moo ci nekk nu ñu mën a def ba aar ko loolee lu ñu yitteel la Babacar Fall ay kàddoom parrainage des élus bi nag lu ñuy wax moom moo ëpp garantie moo ëpp sécurité parce que li loi bi laaj mooy nga am fukk ak ñetti député wala téeméer ak ñaar fukk maire wala président de conseil départemental loolu boo seetee ñi ko am bariwuñu daanaka presque mun naa wax ne xëy na ñeent ba juróom ni euh, parti wala coalition de parti ñoo ko am naam même bu fekkee parti yooyu sax dañu dem doon def parrainage euh, citoyen loolu maanaam duñ ko déposé parce que dafa am ay risque risques yi mooy ñoom ay doublons. le fait que yenn parti wala coalition yi wax ne tey am nañu ñaar wala ñetti millions parrain liñ ciy bëgg pour wane ne ñoom euh, na ñu am na lu ñu tekki ci wàllu mbooloo. mais euh, conséquence yi mooy buñ ko defee premièrement dañuy assécher bassin électoral bi dañu xam xañ ñeneen yi nga xam ne du ñu mën a am nu mu tëddi donc ay parrain euh, ñaareel ba tamit dañu nar a yore ay li ñuy wax ay données personnelles u jàmbur. ay fiche jàmbur ak signature yore ay numéro carte d'identité jàmbur yoo xam ne kenn du xam donc luñ koy doyee ci wàllu woowu donc war nañ ci interpeller en tout cas commission des données personnelles aussi euh, début du du parrainage je pense amoon nañu alerté woon par rapport à sa parce que yow boo ñëw di pare ne nit ki sa carte d'identité ngay génnee euh, joxe numéro euh, carte d'identité beeg numéro électeur bi ak ak yooyu mais yooyu yow yaa moomal sa bopp mm-hmm. à part fa mu ne état bi dencal la ko fa mais yaa ngi koy jox nit nit kookee après peut-être dem na dootoo ko gisati lan la koy doyee également après fiches yooyu nu ñu koy def. Mm-hmm. d'autant plus que dëkk bi jaxasoo na jaxasoo goo xam ne kenn xamatul. donc loolu également il faut nit ñi bàyyi ci xel nañ ko yemale ci wàllu politique ak fa mu war a yem ñu yemale ko foofu problème bañ a am. Mm-hmm. sinon peut-être waa CDP. commission de protection des droits euh, personnels peut-être war na cee mën a àddu sensibiliser également tous ces mandataires wala ñi nga xam ne en tout cas ils, euh, euh, ils sont impliqués dans le processus de collecte des des parrains depuis peut-être le militant ou le responsable politique jusqu'à instance yi nga xam ne moom moo gën a euh, supérieur ci état-major politique yi li ci des effectivement grand Babacar il a raison parce que au début fii lañ doon euh, inquiété wu wala boog di laajte coalition yu mag yi wala parti entre guillemets yu mag yi lan la ñuy wut ci terrain bi di buuxante parrainage au moment où ñoom am nañu député yu doy yu leen mën a parrainer comme waa Benno Bokk Yaakaar comme peut-être waa Yewwi Askan Wi wala boo éclaté Yewwi Askan Wi peut-être tu auras les gens de Pastef à côté mm. tu auras les gens de Taxawu Sénégal tu auras également le PDS donc pourquoi dem sur le terrain di sonn wala boog di xatal yeneen parti yu ndaw yi mais stratégie politique la comme ñu ngi ci campagne man maa ngi fi mais yow tam boo ñëwee peek ma sama terrain man duma la ko bàyyee parce que bu ma toogee sama kër ne pat yow yaa ngi ci terrain bi di liggéey alors que politique liggéey la politique terrain la donc kenn du ko bàyyee kenn dañuy riirandoo ku ci nekk animer sa côté ku ci nekk mobiliser say nit wane ne maa ngi nii am naa nangam mën naa nangam capacité de mobilisation et cetera et cetera maa moom vent am naa popularité mais au final on verra avec le tirage au sort bi nga xam ne moom mooy am. Mhm. pour le dépôt de ces mais bu moytuwul doublon kese lañ fay gis parce que ku ci nekk yaa ngi bàkku di affiché ay ngandim chiffre yu rëy yoo xam ne ne collecté nga ko ci ay parrain mm-hmm. donc ñeneen ñi moom duñ ci sonn animation politique la woon sur le terrain campagne électorale la ñu nekkee woon mais déjà pare nañu seeni ay liste député d'autant plus que boo demee DGE di récupérer say fiche mais lépp lañ lay dox léegi nag yoo yaa xam ban parrainage nga ciy def ñii ñi yombale am nañ déjà le parrainage des élus les des des, des députés mm-hmm. wala boog le parrainage des élus nga xam ne c'est des maires wala conseil départemental et cetera et cetera mm-hmm. mais looloo gën a yomb parce que euh, euh imagine par exemple Amadou Ba Mhm. mandataire am bu naroon dem conseil constitutionnel yóbbu ay parrainage citoyen nekk le dernier de la liste mais ay doublon kese ko ciy fekk. donc mu def le parrainage de député mooy gën a yomb ci moom moo gën a simple. voilà li si des yëpp ñu considéré ko comme campagne électorale point. jeex na remobilisation. 9h46 mhm. euh, Simon bon week-end. mais bon week-end xam naa baal ci nekk jàmm. incha allah baal di ko ñaanal ñëpp. waaw eh, lu am solo bon incha allah eh, laata ñuy eh, àndax mantula ci bindoo ci yéen kaay jàppale ne kon COP 28 si la ñu profito muy li ñuy waxtaanee wàllum coppite gi changement climatique sa Dubaï jigéen yi nekk ci site bu transformation Xelcom Bargny département bu Tëngéej di sàkku ci banque africaine de développement ngir ñu dakkal financement si énergie fossile yi ñuy dugal seen xaalis ndax dañoo gis ne ñoom ci boppam ay victime la ñu seen site ba daanaka centrale charbon bu nekk foofee mu ngi leen di yàqal Fatou Samb présidente des femmes bu site de bu Xelcom Bargny ay kaddoom kàddoom. am Sénégal amatul jën Sénégal amatul jën boobu nag buñ ko boolee ak ay industrie yoo xam ne polluante xam ne la ñuy am a xas si jën war kaa liggéey lekk ka muy am am lu mu si lu mu si loolu defe naa lu métti la lu métti la. Euh, pot bi tam dañu bëgg message bi ñu loolu mooy euh, nañu nañu nañu fàttaliku les communautés parce que xam nañ ne ko ba ku amul doole ku ne amoo ku la boot doo fa yegg te bañ ñu fa demee ñoom ña fa nekk di jël ay décision yan décision la ñuy jël yoo xamante ne mën na euh, jàppale communauté par exemple boo fa demoon tey dañuy wax ne dañuy def transition énergétique maanaam dañuy bàyyi charbon dem si gaz mais kañ lay doon mbaa bu doonee itam est-ce que dina am accompagnement yi nga xamante ne moo si war pour mu bañ a lor. tey gis nañu ne centrale baa ngay dox fumier baa ngi génn sa cheminée ba. Euh, euh, charbon bi ñu ngi koy manipuler comme il faut poussière bi di jox te ku nekk xam na ne dafay dégrader environnement te aussi dafay feebar nit te loolu ñun euh, bañ depuis que centrale bi commencé di dox ba tey loolu si la.